jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet bu 5M TV Sénégal jaa jëf ci teewlu bi. Sall bii doomu Ablaye Wade la produit PDS la PDS lépp lu ñu mus a dal maanaam les plus grands voleurs de la République ils étaient euh, au parti euh, euh, démocratique sénégalais les plus grands voleurs daa wax PDS lañ nekkoon tey ñu bëri ñu nekk APR PDS lañ nekkoon Macky Sall bi mu génnee ñu ànd ak moom parce que APR est du PDS APR est issu du PDS. comme le l'AFP est issu euh, du PS comme yeneen parti li ñu jógee ci yeneen parti bu fekkente ne nag da ngeen jàpp ne loi bii ngeen voté c'est pour permettre à ce que Karim Wade ñu réintégrer ci yi mu bokkaat ci élection yi Macky Sall war na leen trahir na leen comme moom moo mën a war Amadou Ba jàppoon seen candidat tëj ko exilé ko mënul dellu si réew mi. Amadou Ba accusé ko ne dafa am double nationalité bañ ko fësal ba loolu tax ñu report élection ngeen jàpp ne buñ ko yokkalaatee moom mooy tax mu yéen vous ne comprenez pas Macky Sall va dissoudre l'Assemblée nationale vous n'aurez plus de députés vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir donner votre point de vue par rapport aux lois qui seront votées à l'Assemblée nationale de un de deux il va durcir des lois yoo xamante ni Karim Wade du tegati boppam de wàllu il été une fois au Sénégal des députés ont voté une loi anticonstitutionnelle pour juste satisfaire aux besognes de deux personnes Karim Wade et Macky Sall loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp ñu xam ko élection du am Sénégal 15 décembre lii maa leen ko wax fii tey dinañ fa tolluwaat ñu tegaat yeneen maguy pour ñu maanaam Macky Sall man Macky Sall gëw ma ne sax Macky Sall la tudd man maa wóolootul Macky Sall gëw ma ne sax Macky Sall Marème Faye Sall jabaram la parce que maa ko wóolootul Macky lépp lum ñu mës a wax ba tey bu ñu seetloo lépp ay fenn kese lépp seetlu leen Macky Sall lépp lum ñu mun musoon wax 2012 ba jëm yàlla ji ay fenn kese mun naa leen si lim man benn par benn benn par benn ba fiñ toll nii tey ci 2024. fii na ne woon du dépassé vingt cinq ministres Aujourd'hui, on a plus de 81 ministres au sein du gouvernement. Quand on fait le cumul des ministres d'État, des ministres rattachés auprès des ministres, des ministres bu ñu jógee foofu noonu lan la ñu waxoon ci mandat présidentiel bi que da koy wàññi ñu jógee fa mu voté benn révision constitutionnelle en 2017 mu am bi 15 points yi nekkoon pour mun a déposer troisième candidature am fenuñu ñu jógee foofu ñu wax ci l' indépendance de la justice xoolal maguy bi am ci biir justice bi fenuñu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen loo xam ne maanaam Macky Sall dafa signalé gauche jaar de droite peuple bi nag fi mu toll nii fi mu toll nii moom négociation amatul on plus rien à négocier avec le président Macky parce que tey Ousmane Sonko a raison tey leader politique yenn candidat yi nga xamante ni dañ fi doon toog bu Sonko génnee na non na gaay xeex na gaay lii Macky Sall moo gën a après gaay lu ñu doon wax non voilà Euh, Ousmane Sonko il est violent euh, bul génnee booy toog leen seen kër tey ñoom ñoo toog démb ne na gars yi gën na gars yi xeex na booy wàcc wallahi la jim ñoom ñoo toog démb maanaam ñu doon critiquer Ousmane Sonko parce que léegi boobu noonu seen intérêt menacé wul quoi moo tax ñu doon naan Ousmane Sonko garaawul te violent tey nag seen intérêt moo menacé parce que dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañoo dem leb ay millions ci ay banque pour fay caution leb leb ay millions pour battre campagne pour que bu bu coalition amee ñu dugg benn coalition bu ñooñu gëjee ñu nekk ministre pour après ñu mun a rembourser Macky Sall déjoué seen plan yëpp moo tax ñoom ñëpp dañoo wayee di instant yi moo tax ñoom ñëpp ñuy woo booy pour ñu wàcc sur le terrain te pourtant ba ko Ousmane Sonko doon wax il y a quelques mois derrière ñoom ñoo doon toog fii di ko critiquer moo tax tey Ousmane Sonko a eu raison tey Ousmane Sonko maanaam Cap Manuel parce que au moins permettre nga à 18 millions de sénégalais ñu découvrir vraie facette. yow yaay vraie facette bi gën koo gëm tey Macky Sall dañu ko maanaam Ousmane Sonko c' est comme quelqu'un bu koo xamante ni dafa bind thèse ci Macky Sall décortile ñu ko étape par étape étape par étape étape par étape bañ dem ba xam exactement c' est vrai la c' est qui la vrai personne de Macky Sall